أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبير بسم الله نجلي ñu defaral taxawaay defar saaf yi ba mu wax ñu bàyyi xel ci téléphone yi. mu taxaw fii ci kanam. mu taxaw fii ci kanam. ñu ànd ak moom. ñu ànd ak moom. ci ndigalam. ci ndigalam. muy Thierno Hamidou. muy Thierno Hamidou Bane. yàlla na ko fi yàlla yàggal. yàlla na ko fi yàlla yàggal suñu kanam. yàgg gi ànd ak wér. yàgg gi ànd ak wér. barke yonent bi ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam julli gi nee na julli gi ñaari rakkaa amul liqaam amul liqaam kenn jiitu tamit juróom ñaari kabbar la nee na juróom ñaari kabbar la ci rakkaa bu njëkk bi njëkk bi la juróom benn la ak muy juróom ñaar muy juróom ñaar ñaareelu rakkaa bi ñaareelu rakkaa bi juróomi kabbar la juróomi kabbar la ak kabbaru jogaale bi ak kabbaru jogaale bi yal nañu yàlla mottilil ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah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 والشمس وضحاها والغمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد غاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ بعض أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فصواها فلا يقاف عقباها الله أكبر الله أكبر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 akbar السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر ما وقف المسلمون بالأنف على عرفات يدعون خالقهم بصالح الدعوات الله أكبر دابر الأمر بحكمه بحكمته يحكم ولا معقب لحكمه الله أكبر يعلم الخفايا ولا حدود لعلمه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأزيلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقدرته أبدعت الكاهنات له الأمر في الأولى والآخرة وله العلم وإليه المرجع والمآب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا خير أمة للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال جل من خائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوتنا في الحق وإمامنا في الصدق وشفيعنا عند الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أزق الخائلين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانحك هو الأبتر هذه السورة تتحدث عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيم في الدنيا والآخرة ومنها نهر كوثر وغير ذلك من الخير العظيم وقال تعالى قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويؤكد هذه المعنى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين أردفه خلفه قائلا له يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأخلام وجفت الصحف ولقد ودع الله للناس بيتا وجعله حرما آمنا يثبون إليه وجعل إحرام الحاج سلوكا عمليا يتدرب عليه يتدرب على الأمن والأمان وسلوك إسلامي كي يرى المسلم إقوانه من خلال عقيدة تؤمن بالله وتساوي بين خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا فيقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الخائب وقد جعل الله لنا عيد الأضحى المبارك سلوكا عمليا تلتقي الأمة فيه على البر وتتبارى في فعل الخيرات ويحبون في العيد أكبر وأعز الذكريات حين أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم مناما أن يصبح ابنه إسماعيل فأتاع الأب أمر ربه وقدع الابن لأمر مولاه تصديقا لقوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لقد كان امتناحا قاسيا فاز فيه سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وجعلها فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كريمة ندرك من خلالها أن الأمر كله لله فهما وسلوكا فكرا وتصرفا فالحياة كلها بيد الله وهي منحة والعطاء كله بيد الله وهو منه فضل ونعمة فينبغي أن نجعل وجودنا كله لله وطوى أمره حتى نفوز بالسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة والأدحية سنة تؤكد الخير وتنفذ البر ومما هو جدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضها أن لم يضح من أمته ففي رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فصبأه فقال بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي أمة واحدة تعبد ربا واحدا وتجئ إلى قبلة واحدة وتسلك سلوكا واحدا وهي واجبة على كل مسلم كما قال جل من قائل فصل لربك وانحر وذلك لما فيها من فضل عظيم عند الله تعالى وتوزعة على الأولاد ورحمة بين الفقراء والمساكين ولقد كان من سنن الإسلام المباركة أن صن لنا صدقة الفطر قبل عيد رمضان وصنع لنا الأضحية في يوم النحر لتكون فرحة للمسلمين غامرة وبهجتهم كاملة وسرورهم موفورا ولأن ذلك حق الفقراء على الأغنياء وواجب الأغوياء نحو, نحو الضعفاء يغفر الله لي ولكم ولغائر المسلمين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأذيلا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق والسداد لكل ما يحبه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ليس التدحية مجرد الدم يراق وإنما التدحية سنة من سنن الخليل إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ووقت صبحها من صباح يوم العيد بعد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من صبح قبل الصلاة العيد فإنما يصبح لنفسه ومن صبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأذاب سنة المسلمين ويجوز ويجوز تأقيرها ليوم الثاني والثالث بعد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق صبح ويسن أن يباشر المسلم الصبح بنفسه إن كان يحسنه ويقول بسم الله اللهم تقبل مني وتغضم الأدحية أثلاثا يأكل أهل البيت ثلثها ويتصدقون بالثلث ويهدون لأصداقهم الثلث الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أكل وشرب وذكر الله عز وجل اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر أعمالنا خيرا وخير أيامنا يوم لقائك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أخفينا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمdu lillahi rabbil alamin mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla suñ borom julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di baalu xàq ñu ngi leen di baal ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boo leen jéggal ci kattanam boole ñu jéggal itam ci mbaaxam moom yàlla subhanahu wa taala di sant yàlla mi ñu may ñu fekk bis bu màgg bii bis bi nga xam ni bisu feet la ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëpp di bis boo xam bis bu màgg la di bis boo xam sunna la soo xam yàlla mu ngi ko jaarale ci yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam waaye mu nekk sunna ci xeetu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabaski nag jaamu yàlla la jaamu yàlla la goo xam ne gu màgg la yenent bi nee na alayhi salaatu wasalaam du deret ji ngeen di tuur moo ci yitteel yàlla subhaanahu wa taala waaye lii yitteel yàlla ci tabaski ji rek mooy ragal yàlla gi ngeen di am su ngeen di tiim seen xar seen gàtt di ko rendi xam ne gàtt bi da koy jaamoo yàlla subhaanahu wa taala kon loolu yàlla nañu ko yàlla boole nangul ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu ñu fekke ko ay at yu bare bare ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu gàttal foofu xutba bi ñun ñëpp ñu àndandoo déglu sëriñ bi mu sànni ñu kàddu yi mu ñuy sànni ñaanal ñu su ko defee ñu ko tuuti ñu génn ñu. Eh, yal nu yàlla jàmmal jàmmal réew mi. sëriñ bi ne yal na nu yàlla jàmmal jàmmal réew mi. ak mboolem réew yi ko wër. ak mboolem réew yi wër réew mi ak mboolem réew àdduna bi yëpp ak mboolem réewu àdduna bi yëpp li xam ne moom moo natt bi nga xam ne yàlla teg nañu ko ci jullit nga xam ni yàlla na ko ci kaw jullit ñi mooy toog ñaari at demoo aji makka mooy toog ñaari at yàlla demoo aji makka du kenn lu dul coobare suñu borom ne loolu du kenn lu dul coobare suñu borom ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla teggil sëriñ bi ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla na nu ko yàlla teggil su fekkente ne bakkaar la yàlla na yàlla euh, fa euh, jëggal mbindeef yi boo yàlla indi li nga xam ne moom mooy aji makk bi sëriñ bi ne bu fekkee ni ay bakkaar la yàlla na yàlla jéggal mbindeef yépp ba delloo si waat aji makk su fekkente ne ndogal la yàlla na yàlla sàppi ndogal gi mu def ko ndogal bi nga xam ne dañu yombalal pour dem ziar euh, ziar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak wuy ji ko ci labbayk allahumma labbayk ne bu fekkee ndogalu yàlla na yàlla ñu ngi lay sëriñ bi ne yàlla ñu ngi lay ñaar yàlla nga ñu soppil ndogal boobu ba ñu mën a delluwaat di ziyaare yonent bi ak di wuy ji ci sa néeg ba ca ma allahumma labbayk corona bi mooy première vague deuxième vague troisième vague yëpp ci la yàlla ci yàlla la bàyyi ko. mais corona bi première vague bi deuxième bi troisième bi lépp ci yàlla rek la bàyyi ko. talal boot bi yàlla subhaanahu wa suñu loxo yàlla na ko yàlla teggee. sëriñ bi ne ñu ngi tàllal yàlla suñu loxo buur subhaanahu wa taala ko ñaan yàlla na ko teggil. waaw ah, dinañ gën a jàppale nag moom li nga wax li wax ci xutba bi rek. nee na ñu jàppale léegi li ñu jàng ci xutba bi. mooy nañu ragal yàlla topp sunna yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te mooy nañu ragal yàlla te topp sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ak defaral suñu diggante. suñu diggante. suñu defee loolu rek. sëriñ bi ne suñu defee loolu rek. amaana yërmande yàlla bi nekkoon démb dana dellu si waat. mais amaana yërmande yàlla bi amoon nekkoon démb dana dellu si waat. te ba léegi sax yërmande yàlla mu ngi fi. te ndax ñu ngi nii di waxtaan. ndax ñu ngi nii toog di waxtaan. am na ñi nga xam ne taluñu ko. am ñi nga xam ne taluñu ko. ñu ngi ci hôpital yi. ñu ngi tëdd ci seen lalu hôpital. yal na yàlla fëgg seen bopp. ñooñu yal na yàlla fëgg seen bopp. am na ñu ngi nii prison yi. mais am na ñi nga xam ni ña nga prison ba. talu ñu dem it. talu ñu dem julli yàlla dindil njàkkare googu njig di leen leen. yal na yàlla dindil leen njàkkare googu ba ñu génn foofu. am na ñoo ngi ci biir suuf. mais am xam ne ñu ngi tëdd ci biir suuf. yal na yàlla yërëm xaari la aljanna. yal na yàlla yërëm leen te xaari leen aljanna. bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa ci turu nag jumaa ji. sëriñ bi ne ci turu jumaa ji. ak ilimaan yi. ak ilimaan ak magu jakk bi ak magu jakk ji ñu ngi leen balu ak ñeen ñepp sëriñ bi ne ñu ngi leen di balu. ak yéen ñepp ñom bal nañu leen ñom ñepp nee na dal bal baal nañu leen ñom ñepp ñu ngi sakku ci yeen ñaan ne ñu ngi sakku itam ci yeen ñaan mu ngi ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñaanal tawfiq ak taysir inshallah allah tawfiq ak taysir inshallah allah te ñaan yalla yalla na yalla nangul suñu jaamu yalla yépp sëriñ bi ne mi ngi ñaan yalla yalla na nangul suñu jaamu yalla yépp yalla na yalla jëgël suñu bakkar yalla ñu yàlla jéggal suñu bàkkaar yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam léegi incha allahu Pape Mokhtar dana ma wuutoo ci rendi gàtt bi nee na léegi ko ku dem rek na rendi nee mu joxe ndigal gannaaw googu ku dem rek nga rendi sa gàtt noonu la sharia wax nee na noonu la ko sharia bi wax su yàlla dogalee ne koy ku koy rendi ne su yàlla dogalee nag képp ku àgg sa kër bay rend sa gàtt na ko def mooy jaamu yàlla ca rend gi def ko muy jaamu yàlla ak topp sunna yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak topp sunna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci ngay am tiyaaba ne ci ngay amee tiyaaba nga xaaj ko nga xaaj ko ñetti xaaj comme nga waxee léegi ñetti xaaj ne comme ni ko xutba bi waxee léegi xaaj bu njëkk bi sëriñ bi ne xaaj nga jëfandikoo ko ci kër gi ne jëfandikoo ko ci kër gi beneen xaaj bi ne beneen xaaj bi nga jox ko ci say mbokk nga jox ko ci mbokk nga jox ko ci mbokk mooy say mbokk nga ki nga xam ne da nga xam ne ne ñu ngi la jege soo leen joxee ñu kontaan nga jox leen mais say mbokk yi nga xam ne xam nga ni soo leen joxee daan ca bépp kontaan nee na nga jox leen sarax ci nag. nee nga sarax ci. incha allah soo ko defee yàlla mën na def mu dem yàlla. nee sëriñ bi ne loolu na doon mu am mu nekk jaamu yàlla bu yàlla na. te xar bi na gàtt bi na nekk gàtt bu mucc ci ayib. bi nag na mucc ci bëjjën yi ci bëjjën ya ci nopp yi ci ci bët yi bët yi ci tànk yi ci biir bi ci biir bi lépp baax lépp baax loolu suñu ko defee rek incha allah. mais ñu ko defee incha allah. dina dina baax. dana baax. ñun ñëpp ñu jàngandoo Fatiha. sëriñ bi ne ñun ñëpp ñu àndandoo jàngandoo Fatiha. sant suñu borom. sant suñu borom. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne def koy tawassul suñu diggante ak suñu borom. mais def ko tawassul maanaam doxale loolu suñu diggante ak suñu borom. ñu toftal ci nag suñu doléance ci yàlla. ñu toftal ci nag suñuy doléance ci yàlla. mooy salaatal tunjina. te mooy salaatal tunjina. moom day matale mboolem doléance bi nga xam ne. te nee na salaatal tunjina boobu day matale mboolem doléance yi nga xam ne yaa ngi am sa soxla sa diggante ak sa borom. yaa ngi am ay soxla sa diggante ak sa bopp. yaa ngi am soxla sa diggante ak sa bopp. yaa ngi am soxla sa diggante ak say morom. yaa ngi am soxla sa diggante ak say morom. képp ku koy jàng. nee salaatan tunjinaa boobu sëriñ bi ne képp ku koy jàng. ñetti yoon. ñett yoon mbaa juróom-ñaari yoon mbaa yoon fukki yoon ak benn mbaa fukki yoon ak benn mbaa ñeent fukk ak benn mbaa ñeent sa soxla du tële nee sa soxla du la tënk. su fekkente ne am fekkee am nga soxla bu diis. def ko junni yoon. nga toog def ko junni yoon. ngir barke rasulullah sallallahu ngir barke rasulullah sallallahu alayhi wa la fajal la fajal aaju kon nag yàlla na la faj aaju yi. faj aaju yëpp. am na ñoo xam ne dañoo jógee ba Ouest Foire. mais na ñoo xam ne yàlla la wuy si. ñoom yàlla la wuy si fii. mais cofeel. waaye nag cofeel ak yaakaar ak yaakaar yàlla yàlla moo leen indi fi moo leen indi ci néegu yàlla kon ñun ak ñoom kon ne sëriñ bi nee na ñun ak ñoom ak fu waay jóge ak fu waay jóge julli ku mel ne yow danga jóge ba caaro yi ne ku mel ni man nii maa ngi jóge ba caaro yi ngir rek ñëw bégal jullit yi ngir rek ñëw bégal jullit ñi kon nag yàlla gis na kon loolu yëpp sëriñ bi ne yàlla gis na ko yàlla jéego yi yàlla yàlla def jéego yi ne kilifa diine na yàlla yàggal suñu kanam yàlla na yàlla yàggal leen suñu kanam bi jaay rasulillah sallallahu alayhi